damay ñëw rek si Cheikh Mbaw mu nuyoo euh, jox Seyda Maria ñu nuyoo ñu doog a ñëw si clip bi incha allah rabbi Cheikh ñu ngi lay nuyu. waaw alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah Seydi Moustapha ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di la ndokkeel si invitation bi nga xam ne defal nga ñu ko tey muy surprise bu rëy a si ñun di la wàccee sa wàccuwaay ginnaaw loolu ñu ngi nuyu képp koo xam ne téléspectateur nga si télé bii di sa TV. di jiital si nuyoo yëpp nag suñu sëriñ suñu bunt si Maolana Cheikh Ibrahim mooy Maolana Sang Aboubacry Barhamu Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax di ko wàccee wàccuwaayam di am mbégte lool si ronu si keppaaram nga xam ne amul sikk ne fi mu ñuy jëlee ak fi mu ñuy yebbu tey wuute na lool loolu ñu ngi si am kontaan bu baax a baax a baax a baax. di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu képp koo xamante ni jullit nga rawatina tiijaan yi rawatina taalibe Maolana Cheikh Ibrahim yi. di leen wax rek ne tey ñëw nañ ci plateau bi ngir bëggalante ak yéen ci préparation gàmmu nga xam ne ñëpp tey ñu ngi koy fuglu di nuyu jamaa Fityaanu Sidqin comme ni ko suñu soppee waxee muy Mouhamed Niang Toubaay nga xam ne ñun suñu soppee la suñu lépp la ñu ngi koy wàccee wàccewaayam bu baax a baax a baax ginnaaw bu mu nuyoo président ak cellule communication président bi muy Mouhamed lamin jool ñu ngi koy nuyu moom it bu baax nga xam ne tey jii mën nañoo wax ne moom mooy suñu loxo ndeyjoor ndax mooy suñ ménagère boo xam ne tey lépp lu ñu bëgg a def si fayda bi wala lépp lu ñu bëgg a feeñal si ay abiyaati Cheikh Ibrahim moom moo ko téye tey di ñuy feeñalal lu bëree baree bari ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu jamaa Tëngéej ñoom ñëpp seen président di nuyu suñu waa koñ Zag Mbaaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa Saalum yëpp suñu dëkk waa Mboyen nga xam ne tey jii ñoom ñëpp ñu ngi toog di seetaan émission bi vraiment ñu ngi am mbégte lool di nuyu Seyda Mariam bu baax a baax a baax Seyd Moustapha ñu ngi lay delluwaat sa wàccuwaay. jërëjëf di jërëjëf. jërëjëf euh, Seyda ñu nu bàyyi la nga nuyoo. waaw alhamdulilah. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah Seyd Moustapha ñu ngi lay ziar di la nuyu. di nuyu téléspectateur 7TV yëpp. di nuyu umma islamique bi tamit di ci jiital euh, sunu wasila Maulana Sang Barhamu di nuyu. ñu ñu nekkal ci plateau bi di ci jiital suñu sëriñ Seydou Touba di nuyu Cheikh Mbaw Zakir di nuyu jamaat fi daanu sirkin yëpp di jiital ci nuyoo gi président bi tamit Massayar di nuyu bépp mbokku taalibe soppi yëpp di wax ne ñëwaat nañ fi set ñëw nañ set TV tey pour bëggalanteeg ñoom ci euh, wàccaayu gàmm gi incha allah. jërëjëf Zeyda dañuy dem euh, seetaan. benn clip boo xam ni euh, tey daanaka démb la génn si guddi waaye ñun ñoo koy jëkk a teg incha allah rabbi muy clip boo xam ni Cheikh Mbaw mii toog euh, bokk si njabootu sang barxaam moo ko def bégalee ko soppee ngir gàmmu gi ñu seetaan clip boobu ñëwaat si waxtaan wi incha allah. من قبلها طبت في ظلال وفي مستودع حيث يوصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر أنت ولا مخط ولا علق متهرا تركب الشفين وقد ألجم نصرا وأهله الغرق وردت نار القليل مكتتما تجول فيها فلست تخترق تنقل من صالب إلى رحيم إذا ما دعلمون بتا تبقون حتى انتوى بيتك المحيمن من غند في عليا تحتها نتق وأنت لما ولدت أسرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذاك الضياء وفي نور وسبل رشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه ممدوح عندك والماده أن تحظم حظنا بذلك نور وضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نسأة الآدمين والكون لم تفتح له الألاق أيروم معلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناذر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آه حق قدره ومقدار العظيم متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلوم مثل مصباحي دجى المتوقد فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكال للملهد أقر عليه بنبوة قادم النار من الله برهان يلوه ويشهد ودم إلى اسم نبي إلى اسمه إذا قال في القمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه نيج له فذو العرس محمود وهذا محمد تعدي به ناقة الأنماء مضطجرا بالبر كالبدر جلى ليلة الظلم وفي عتافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن رسول لسيف يصطدى به محند من سيوف الله مسلول وأبيض يستسغى الغمام بوجهه سمال اليتامى يسبت من أرامل يلوذ به هلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفوادل منزهون عن طريق في معاصمه فجوهر الحسن فيه خير منقدم لما دعت النظر في نبيهم وكن بما شئت مدان فيه واحتكمي وانظر إلى واده ما صرت من طرف وانظر إلى قدره ما زدت من عزمنا فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو نازم قدره آياته عزما أي اسمه إلى يدعى دار سرممي لم ينتهنا بما دعي العقول به حسن علينا فلم ندب ولم نهمي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 من فاتهيته لبدء الإيجاد براعة الاستهلال ومن قادميته براعة المحكم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولذان حجتك وعروز مملكتك وإمام حضرتك وتراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق صريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين آيان خلقك المتقدم من نور ديائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترديك وترديه وتردى بعنا wa an walidina wa azwajina wa zurriyatina amin ya rabbal alamin li zaadatun min hadihim aqdamuhum fawqa aljiba in lam akunna minhu fali bihubbihi meesun waja فبجايهم وبيزهم طيب لنا عيسى الهيا واطم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تهنئة ربيعه بمرحتي سفيعي بمنتغ بديعي أبغي يا مؤملي بجايهم يا إلهي اعور لناظمها واسمه لقارئها وللذي حضر وعمهم بقفي لطف وكفهم نوائب دار ما أفاته الكدرا أجب دعاهم وعجل بالذي طلبوه بجاي أحمد مع أصحابه الخيار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناذر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أهلا بشهر المولد ذكرنا بالمقتدي أصل الأصول سيدي حبيبنا المبجل أهلا بشهر المولد ذكرنا بالمقتدي أصل الأصول سيدي حبيبنا المبجل قد كان خير المرسلين قبل الوجود الأولي ولم يكن من جندلي لأصلنا المؤسلي لم يدري خير خلقي في خلقه وخلقين سوى الإله الحق من ملك أو مرسلين فشانه شان عجيب wa ramzuhu ramzul habib ramzul habibi lil habib fi urfi xayru mushkilin yaa lal imaami al mutala mata ajaaba bi bala lawlaahu daama mushkila li uzmi ma qad yanjali lawla al habibu al mutala ma niila ma za yurtada wa diinuhu lazi irtadaa ilaahu fi l-azali ahlan bihi is humila ahlan bihi is unzila mufaqaman mubajjala qad faaqa kulla rusuli ahlan bihi is ursila wa isra wa nadala wa naala zikra munzalan wa laysa bil mubaddali أهلا به هنا تلا سبع المسان مسجلا ونوره تأصلا من مجده المؤسلي أهلا بمغراب الوجود أهلا به عين سهود أهلا بذلك الودود والنازل المنزل أهلا به من فاضل مفضل وواصل موصل وكامل في ناس خير مكمل أهلا به من ماجد ممجد وحامد محمد وواحد وموجد مقوليا أهلا به من عابد مجاهد وصاهد قاتل كل عاند للحق مهما ينجلي أهلا به إذ جاءنا منان بدافع ما لنا من مودل الخرشاءنا بل كل شيء مسكن يا ربنا سلي على نور الإله المطلق من قصه حق العلا بالمحكم المنزل سلي على من عمر لم يدره وصور من نوره وصور مرح له من العلي سلي على من سجدت لنوره إذ أبصرت أملاك رب الأحكمات آياته في الأزل صلي على الإثنين رمزة كل اثنين وسره في اثنين وذاك سر أزلي صل على البشير هنا أطاح نزيري بقدره الكبير وتعطي للمؤملين صل على المحمود محمد ذي الجود ومنبع الوجود وعين سر ينجلي وكل من جاد بسي لمولده المغتار أي كرامة لخيرها فإنه كمن ولي يا ربنا فاغفر لنا وتكف عنا واكفنا وتتقبل سعينا بجاه هذا المملي صلي على من من هزم مولده حقا حرم مسجهيم المترم باينس لفضل رب المزني صلي على من من حضر مولده هنا ذكر يكون مثل من صبر بيوم بدر المرسلين وكل من جاد بشيء لمولد المختار أي كرامة لخيره فإنه كمن ولي يا ربنا صلي على يا ربنا فاغفر لنا وتكف أنا وفنا وتتقبل سينا بجاي هذا الأكمل وتهدنا واهدي بنا ونجنا وراقنا ونسلنا وأهلنا وصحبنا ومن ولي ولتكفي عنا الكل ولتؤتنا وللغنى وتنغفا ونيرن سوقوا يوم استداد الوجل وارزق لنا العلوم واكشف لنا الحيوم وتعطينا الفهوم بجاه خير المرسلين وسليا يا ربنا على رسول حبنا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

ñi ngi ndokkeel ñëpp ñu ñuy suivre si Facebook bi moo xam YouTube bi gis nañ partage bu baax a baax xam nañu yéen a ngi topp émission bi bu baax Ibrahima Diémé ñi ngi lay siyaare bu baax euh, suñu waay la suñu xarit la mi ngi ñuy bàyyi xel euh, tout si euh, yonent bi lañuy la ñuy ñëw ndax gàmmu moo teeru su weer bi musaana feeru teeru su weer bi musaana feeñ nan la bàyyi daan ko yëgee macha allah alhamdulilah ñu ngi santaat yàlla beneen yoon ñu ngi la nuyuwaat Seydi Moustapha dëgg-dëgg yow dëgg-dëgg animateur nga te dëgg-dëgg lii mooy wane ne ku bëgg yonent yàlla Muhammad la ku ko sopp nga ku koy dund nga parce que question bi ku ko dégg da laaj borom xam-xam nga question bi laaj Cheikh dafa ma laaj ne <clears throat> bu weer bi mosoon a feen lan la bàyyi daan yëg nga xam ne bàyyi ku neex a waxal mhm. du sëriñ boo xam ne dañ koy sosal maam dafa bind ba fi danaan yasfu fuaadi wa yaalul ayshu xina bada rabiu man bi olahu yaxtali mu daru weer wi day tël bàyyi ne yasfu day sell day set yasfu fuaadi sama xol bi wa yaalu day neex alayshu dund bi kañ mu ne xina bada heure bu feeñee rabiu man bi olahu yaxtali mu daru weer uh-huh. ربيع من بعلاه يعتلي المدر يسفو فؤادي ويعلو العز حين بدا ربيع من بعلاه يعتلي المدر nee na sama xol bi dana set wit sama xol bi day sell sama xol bi day neex weeru ki nga xam ne ci yëkkatiw gi ci la maamam mudar yëkkati ko wax ne laaxa rabion wa saa aniyal kurubu wa hëja taskaru man ala lahu rutubu laaha rabbiyo wa zaad anni alkurabu wa haada tazkaaru man alla lahu rutabu nee na laaha feeñ na a rabiyo rabiyo rabiyo awal mooy gàmmu weeru gàmmu feeñ na laaha rabiyo wa saa ani alkurabu sama njàqar yëpp dem na laaha rabiyo wa saa ani alkurabu wa haaja tazkaaru man alla lahu rutabu jéqi na sama xol bi fàttaliku ki nga xam ne mbooleem grade yi mbooleem martaba yi moo ko rango وهاجة تسكر على الله رتب كان لا من هبل بالبصير النظير المصطفى وابوه ابو القلائق من والت به ريبو من كوغي هبي موي سما صوب البشيري موم موي بيغلكات بي النظيري موي كوبكات بي وابو ابي القلائق موي باي باي مندي في ادم صح كوكو موي باي man zalit bi riibu ki nga xam ne bi mu ñëwee ci la werante ci la sikk sàkk dañ ci nit ñi moo tax weer bi bu doon tël rek nga dégg mu ne xanii an li ibrahima allaha hilaaluhu hilaalun bada linnadirina jamaaluhu hani an li ibrahima allaha hilaaluhu hilaalun bada linnadirina jamaaluhu hilaalu rabbin fi jaa muhammadun fatama lana albushra wa ma nawaluhu danaan ani an li ibrahima mu ne ak ndokkeel am na kuñ ko war a def mu ne li ibrahima kaay leen ngeen ndokkeel ma mu ne eh yi nga xam ne bu weeri feeñee da ngeen ne da ngeen ndokkeel sori yéen ñëpp dajaloo leen ngeen ñëw ndokkeel ma man bàyyi ani an li ibrahima lu tax mu ne laaha hilaaluhu wi feeñ ñaan weeru yonente yàlla man sama weer la man laaha hilaalu hilaalum badaalin naadirina jamaaluhu weer la woo xam ne feeñ na képp ku am gis bu xal boo gisee weer wi du gis dara taar nga gis taar yonent Yàlla nga gis هنيئا لإبراهيم الله هلاله هلال بدا للناظرين جماله هنيئا لإبراهيم الله هلاله أول ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله déglu lii mu ne xilaalu rabiin fii jaa Muhammadu mu ne weeru rabiul awal mooy weeru gàmm fii jaa Muhammadun ci la yonent Yàlla Muhammad ñëw kon fa tamma lana al bushra mbégte mi daanañ kontaan mais daa mel ni li daan kontaan ci at mi yëpp moom la yàlla dajale këppuñu ko fa tammalana al bushra mbég tamit mat na wa amma nawaluhu da mel ni yàlla ci at mi dafa am ay may-may yu ndaw yu mu ñu jox waaye dafa mel ni dafa dajale may yëpp ba weeru yoonu taal ma mel ñëwee mu këppuñu ko wa amma matale na nawaluhu ay mayam hilaalu rabbiyan fii jaa muhammadun فتم لنا البشرى وعم نواله لأفضل أرض حال أفضل مرسلين بأفضل يوم فطبان كماله دقلول نبي لأفضل أرض حال لأفضل مرسلين بأفضل يوم فطبان tabaana kamaaluhu kon ala kullin li afdali ardin moom ca juddu gi lay ñëw waaye bàyyi li mu daan yëg la ma laaj bu ba weer wi feeñaan li bàyyi doon yëg bàyyi daan sama xol bi day set sama xol day sell sama xol bi day neex sama dundu day sensé parce que weer yu doon tal moom noonu feeñ ñu ne waaw bàyyi weer wi weeru kan la mu ne weer wi sax dama leen di noppal sama weer la man Cheikh Ibrahima radiallahu anhu comme li afdali ardin loolu sëy bu ñëwee si juddu gi kañ la juddoog luy judd gi fu mu juddoog loolu ci lay li afdali ardin ñëw bàyyi radiallahu anhu ala kullin weer yi bu feeñaan mbégte day feeñ ci kanamam weer yi bi feeñaan kontaante day feeñ ci kanamam weer yi bi feeñaan da ngay gis ne kii dëgg-dëgg lépp lu am da koy génn jox ko da ngay gis ne jàngale nan def da koy gën a yokk yitteem yi da koy gën a yokk kon ala kullin weer wi dem na ba ne weer wi sama weer la man Cheikh Ibrahima radiallahu ñu ngi lay ndokkeel bu baax Seydou Moustapha ci laaj bi a laaj laaj bi nga laaj laaju borom xam-xam la sang Barxaamu Njaay lañ hmm. lu ñu xam rek sang bee tax ñu xam ko mhm. dëgg sànq maa ngi koy tudd naa la ñaanala ma Kabir Ndoy bu baax a baax mhm. daa am ndax ma koy tuddaat nag mhm. ndax euh, day nit koo xam ne ku baax la si ñun ku ñu fonk la alalam du jug si ñun moom Cheikh Mouhamadou Kabir Ndoy ñu ngi ñuy suivre actuellement dafa nekkul sax si réew mi waaye ñu ñuy bàyyi xel bu baax a baax ñoom président Massaer tamit dañuy jàpp si ñun bu baax a baax euh, ñoom euh, Baye Ousmane Kébé ñoom la ñoom Lamine Diol Cheikh Moussa ma li may gars yi damay juum mais tax ma ñëwaat wax sànq am ko ma signalé ne ma mhm. euh, il faut que nga duggaat si Kabir mhm. ma ne ko baax na mhm. amul problème moo tax Kabir suñu waaj ñu ngi lay siyaare waat bu baax te dina la jox sa wàccuwaat dañuy taxaw ak yow xam nañ ne temps ko maye te war nañoo dem xadara léegi incha allah rabbi euh, yonent bi dañuy dégg nit ñi naan ñi naan war koo tagg ñi naan waruñu koo tagg loo ñu si leer alhamdulilah Moustapha yow daal xam naa ne daal vraiment yow yow moom sang bi la nag sang bi non non yow moom am na ay leer yu la tëb sang bi la fi xam naa ne macha allah ala kullin euh, ñu ngi lay ndokkeel ci laaj yi nga laaj laaj yi dafa xam-xame est-ce que war nañoo tagg yonent Yàlla Muhammad est-ce que waruñ ko waru nañ ko tagg wala waruñ ko tagg parce que am na ñoo xam ne ñoom dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn waru ko tagg wax la ne euh, yonent Yàlla dañ ko war a tagg te tagg nañ ko ci kanamam nag yonent sallallahu alayhi wasallam euh, buñ ci ñëwee dafa am boo xam ne ñëpp ko bokk dafa am boo xam ne pour ñi am jagle la loolu nag comme ñëwagun ci yonent bi waaye yonent bi war nañ koo tagg wala waruñ koo tagg yonent bi sallallahu alayhi dafa toog bés bi mu toogee Abbas ibn Abdul Muttalib ya ko yaa rasulallahi inni uhibbu an amdahaka yow yonent bi yàlla bi dama la bëgg a tagg yonent bi ne ko qul laa yafuddu llahu faaka xabas tagg ma yàlla bu sa gémmiñ xotte ko moom nga dégg waa ji di si kil bi léegi naan min qabli ha tibta fi zilaali طب في ظلال وفي مستودع عيس يصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر أنت ولا منقة ولا علق بل نطفة تركب شفين وقد الجم نصرا وأهله الغرق الله أكبر وردت نار القليل مكتتما تجول فيها ولست تخترق تنقل من صالب إلى رحيم إذا مدى علم بتا تبقوا oh, déglu lii kon lii way nañ ko yónent yàlla ba met si kanamam comme buñ ci duggee mën nañoo tarre mais pour wal la ne yónent bi joxe na autorisation pour ñuy way ko bis ah, beekoor am na ci màkka ñi koy ñaanloo ndox dafa toog ci kaw minbar bi ñaanul sax kanamam gu leer gu taaru gu dafa siggi teen asamaan ci taw bi naan satatatatatatatatatat satatatatatatat ba abu talaatu naan ko yonent bi tàndarama ja tàndarama ja abu talaatu bu ko bàyyi nettali nga dégg mu ne abu talaatu ngay xëccantoo xëccanteeg tàndarama ja yonent bi ndeysaan mu muñ ne bu abu taalib dundoon dana kontaan ali ne ko loo bëgg ko la wa abyadu wa abyadu yustadga alxamaamu bi wajhihi ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به هلاك من آل هاشم فهم عندهم في نعمة وفوادل منزهون عن صريق في محاسنه فجوهر الحسن فيه خير منقدم déglul lii yëpp dama koy laytaayee yii yëpp mën naa ci dugg mais su ma ko duggee day jël sama temps lu bëri dama lay wan ne yonent bi joxe na autorisation ñu way ko keroog fii bi taw bi amee dana ana ku may way ana waykat yi ba Abu Talib dundoon dana kontaan Ali ibn Abi Talib bayt yi la sat te Abu Talib moo ko wayoon ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko njëkk a tagg parce que Baay ku jóg na bërit pour bëgg ko way da lay wax attention taxawal parce que lu lam yadri xayral xalqi fi xalqihi wal xuluqi سوى الإله الحق من ملكين أو مرسلين لم يدري خير لم يدري خير الخلق في خلقه والقلق سوى الإله الحق من ملك أو مرسل لم يدر غير القلق في قلقه والقلق سوى إله الحق من ملك أو مرسلين dégg bàyyi ne lam yadri xayral xalq gën ci mbindeef kenn xamu ko fi xalqihi kenn xamul bindam bi wa xuluqi kenn xamul jikkoom ji ñu ne ah mu ne si wal ilahi lxaq lu dul yàlla mi nga xam ne mooy dëgg mu ne min malakin aw mursalin malaaka yi li ñuy foor foor xamul yonent yàlla Muhammad yonent yi li ñuy foor foor xamul yonent yàlla Muhammad waaye léegi comme yàlla rek moo xam yonent bi kon ku bëgg a tagg nooy def yàlla moo njëkk a tagg yonente yàlla muhammad mo ra bàyyi mi dégg ne qad asna alayhi rabbuna bi kalaamihi fa maasa haza barham yusbi wa haakiya faulun mafailun faulun mafailun mada dahri la yaati bi xaqi kama iya bàyyi ne qad asna alayhi rabbuna bi kalaami yonente bi yàllaa ko tagg ci ay waxam kon fa maasa haza barham yusbi wa haakiya lu tee bàyyi du nettali tagg yàlla tagg yonente yàlla muhammad yonente bi yàlla ba mu koy tagg dafa commencé ci famem askanam la yàlla njëkk a tagg laqad jaakum rasulun min anfusikum xasisun alayhi ma anittum arisun alaykum bi muminin uf rahim ma ne képp kuy weddi ne ko tag nañ koo tagg nga nga wax ak yàlla ba pare yàlla moo ne laqad jaakum dikkal na leen rasulun yonent boo xam ne min anfusikum seen yéen la bàyyi seen bopp la bàyyi ko kon ma ngay tagg askanam ba mu bàyyi ko kon ala kullin askanam yàlla tagg na ko bi yàlla taggee askanam askanam nag waykat yi wax nañ si ma yonentu boobu nag askanam sahir bi yonentu bàyyi ko si ñun mooy ki nga xam ne Abdoulaye moo ko jur Ameetu moo ko jur loolu nag waykat yi ñoom bu leen waxee ñu ne Mahamad ko jur Abdullah Abdullah Abdul Mutalib Abdul Mutalib Hashim Hashim Abdul Manaaf Abdul Manaaf Xusay Xusay Kilaab Kilaab Mor am na yonentu boobu waaye am na yonentu boo xam ne yàlla moo ñu wax ne rasulun minallahi comme ñëw guñ ci kooku dama la bëgg wax ne comme tagg rek yàlla tagg na askanam waaye yàlla ba mu taggee askanam est-ce que askanu yonent rek la yàlla tagg déedéet yàlla ba mu taggee askanam yàlla dafa tagg jikko te boobu rek lay gaa yi jël naan yonent ba ko yàlla tagg ci Alxuraan taggeewu ko dara jikko rek la tagg déedéet bu yàlla léppam la tagg laqad jaakum rasulun min anfusikum askan ba tagg yow nag bi nga xam yow mooy wa innaka la ala xuluqin asim yow ñëpp yàlla leen gën a sut ci jikko mais yonent bi yàlla tagg na kàddu yàlla ma yantiqu anil hawa yàlla tagg na ko yonent bi yàlla tagg na gisam wa maa saaxal basaru wa maa taxa yonent bi yàlla tagg na xolam maa kasabal fu aadu raa kon yàlla tagg na kàddoom yàlla tagg na gisam yàlla tagg na xolam ma tax bàyyi mi dégg mu ne isa ma talat taali sifaati nabiyina bi wa najmi amsaali xaqiqati daariya mu ne aji jàng ji bu fekkoon ne jàng na melokaani yonent yàlla si suuratul naj waaw dina mujj xam kan ma yonent yàlla Muhammad parce que si suuratul naj mi ngay gis yàlla tagg xolam si suurat uh, uh, naj mi ngay gis yàlla tagg gisam si suurat naj mi ngay gis yàlla tagg kaddoom si suurat naj mi ngay gis yàlla tagg message am wa ma yantiqu anil hawa kon ma ne yonent yàlla Muhammad yàlla ko njëkk a tagg kon ku bëgg a tagg yonent bi da ngay dem jëli li yàlla tagg nga taggee ko yonent yàlla Muhammad kon képp kuy weddi ne yonent bi dañ ko tagg moom dañ ci déggee ne dëgg-dëgg yow déggoo diine yonent bi joxe ne autorisation ñu tagg ko ci kanam yonent bi yàlla ko njëkk a tagg tagg na jikkoom tagg na askaram tagg na euh, kaddoom tagg na gisam tagg na xolam tagg na message am kon yonent bi tagg gi yàlla moo ko njëkk a commencé ci moom moo tax bàyyi ne wax salli ala man euh, lam yadri lam yadri salli ala man xamaru lam yadrihi wa suwaru déglu mu ne Omar xamu madhun lahu min al ali déglul salli ala man umaru lam yadri salli ala man melokaan yi melo yëpp min nuuri mu ngi jóge ci leeram min nuurihi saari saari saari alquran yi baqara ba naas mm. madhun lahu min baqara ba naas yi yonent ndax tagg ci nit la jóge mu ne min al ali mu ngi bàyyi ko ci yàlla kon bàyyi ñes nee na baqara ba naas ki muy tagg mooy yonent yàlla kon yow bul wax non yonent bi de de tagg gi yàllaa ko njëkk a commencé kon tagg yonent yàlla Muhammad dafa dagan moo tax bàyyi mi dégg ne képp ko xam ne danga nga sori yàlla kaay ma laahi biir bu fekkee danga nga bëgg a jege yàlla kaay na kaay man la kaay nga tagg yonent yàlla Muhammad képp koo xam ne da nga dem ba nga xam ne société bi dañuy wax ne kii mënatul baax bàyyi ne kaay ma laahi li biir boo bëggee set boo bëggee sell soo bëggee defaru soo bëggee ku la gis bëgg laa doomoo wala mu bëgg laa baayoo man la kaay nga tagg yonent yàlla ñu ne ko bàyyi bindal ëllëgay tag mu ne madhu nabil Moustapha. madhu nabil Moustapha. yuhdika qurban wa safa. fa huwa dalilul muxtafa faaqal baraaya sharafa. nga ne madhu nabil Moustapha. madhu nabil Moustapha. dégg loolu mooy tagg ki solo xam-xam. mu kii yàlla tànn mu yonente yàlla Muhammad. yuhdika qurban wa safa. nga ne da lay cëral. sell da lay cëral jege yàlla. fa huwa dalilul muxtafa. faaxal bara mu ne mooy tegtal bi ñëpp di wër ki nga xam ne moom la ñëpp di xencu faaxal bara sarafa yéen daal ma mel képp kuy tedd yéen daal ma mel képp kuy baax yéen daal ma mel képp kuy yëkkatiku bàyyi ñes na ne ka la sut ka la gën a tedd ka la gën a yëkkatiku ka la gën a baax mooy yéen daal ma mel faaxal bara sarafa faaxal bara sarafa badrul huda bahru nada dégg nga nee na badrul huda weeru njub la léegi yonentu moom na nga xam ne yàllaa ko njëkk a tagg soo ne bërit pour tagg ko mhm. tagg gi lan la lan mooy tagg kon man la wax naa ne yonent bu am na moom la ar Alxuraan wax ne laqad jaakum rasulun min anfusikum loolu dañ koy déglee ñi nga xam ne fii la ñuy déggee fii la ñuy xoolee xol bi la ñuy yëgee waaye nag yàlla waxaat na ne rasulun min allahi déglul li lay xamal ne bàyyi li Cheikh Tidiane waxoon ne ashaabi lahum lutfaani lutfun xaasun bi wala lutfun mahamatu naas Cheikh Tidiane nee ne sama taalibe ñaari mbagg lay am wala ñaari yërmande lay am yërmande boo xam ne da bokk ak ñëpp ak man ba yërmande boo ne pour moom kenn kese xam nga fi gaa yi taggee nii nga ñëw taggee fa wan gaa yi weddi tagg ne yéen da ngeen gërëm ki a tagg kay mooy yonent yàlla Muhammad parce que ko tagg li yàlla def nag de ko dagan na ñëpp gis ne ah kon ndeke ñi doon weddi tagg yonent yàlla Muhammad ñoom ñoo amul xam-xam waaye bàyyi mi xam-xam na ne ki ñu war a tagg mooy yonent yàlla Muhammad bàyyi ñëwaat ne nag am na ku yàlla wax man lu yàlla wax dama koy wax yalla ba mu waxee laqad jaakum rasulun min anfusikum naa ci yonent boobu bi yàlla wax ne rasulun min allahi dama naan rasulun min al mawla wa aadamu lam yakun wa yabqa rasulun min al mawla wa aadamu lam yakun mhm. wa yabqa rasulan daiman wa muadama oh. fa nashatuhu كنزية الحق وحده لذاك أتانا خاصما ومخصما الله الله الله الله يا الله san dëgg la waay bàyyi na yonent bii ngeen xam nga xam nee naa ak bàyyi may Abdullah Abdullah ko jur Abdul Mutalib Hashim Abdul Manaf Xusay Kilaab Murra Kaab Looy Xaalib Fiir Malik Nidar Kinaata Xusaymata Mudir Kata Ilias Mudar Nidar Maat Hadnaan ko ngeen xam tag boobu sax tag tag arrière la marche arrière la gay dóor bàyyi moom ba mu koy tagg moom dafa dugal premier parce que marche arrière boo ko dóoree da ngay xool si gannaaw bu dee boo mënee oto xool si rétroviseur si gannaaw ngay xool bu fekkee ne premier boo ko dugalee moom si kanam ngay xool bàyyi ba mu koy tagg moom dafa commencé sa leer nga faqad rabbuna aadaman waxtaara siisa alwasiya faqad ixtaara rabbuna aadaman wa wisaaliya taxumaa jóg parce que fii bu fi duggee lii émission ay waxtu la nga xam ne da ngay dugg fii génn fii dugg fële mais comme une heure de temps la itam yeneen question lay xaar kon man la bàyyi tagg na yonent bee waaye waxaat na ne rasulun minal mawla am na yonent boo xam ne ci yàlla la bàyyi ko direct kooku Abdoulaye du bàyyam kooku Aminatu mënu koo jur kon nag ku lijjanti yonent bi ba pare bégee ko ba pare war nga lijjantiwaat beneen yonent bi nga xam ne moo bàyyi ko ci yàlla direct da ngay taxaw ndax sikk foofu rek nga yem rasulun minal mawla wa aadamu fekk aadama abul basar mi lam yakun amagut yonent bi may wax wa yabqa rasulan day des di yonent daa iman ba faw yonent boobu bàyyi di tagg bàyyi ne mu ngi dund ba tey ji te alquran mu ne bàyyi yow laa àndal wax la mu anna fiikum rasulallahi xam leen ne yonent yàlla mu ngi seen biir bu fekkee nag da nga ko firee ne saaba yonent dañoo toog saaba yi toog yàlla wax ne ne yonent baa ngi seen biir bu yonent bi demee saa bi dem nañ fole aay bi kon yonent bi ba tey jii mu fi misaal rek yàlla da ko ne wa ma arsalnaaka ila kaafatan linnaas dama la yónni si ñëpp mais yonent bi yàlla yónni ko si ñun yonent bi dem te ñëwaguñ ndax jotal na message sax ma sëriñ na Sang Barhaamu Njaay li tax nit ñi war koo may nopp day yeekali te li mi wax diisul ba ëpp diisul maanaam gis nga yow yaay fexee nangoo mag gis nga xale xale xale xale da nga koy yéegal étape par étape da ñëw si daara jàng ñu la ba siin miin boo demee ba man nag da lay jéem a yéegal nag waxal la bi as mi soo demee ba man nag da lay jéem a yéegal waxal na waxal bismil laahi boo demee ba man nag da lay wax ne bismillah maa ngi commencé sama wax ak sama jëf si tudd yàlla waaye nag mais étape par étape la mais yow doon yow na moom yow fu mu nanga yow mbaamu daara nga bëgg doon yow yow daal foo bëgg a tawra ba siin miin nga judd ba dee ci ba siin miin mais jéemal a màgg quand même doo avancé kon ñu ngi lay jéem a yéegal day jéem a yéegal sa niveau te day yéegal yow fu fu sa fu jege da lay wax ne adduna bii julit ñi wax ma ñu nekkul julit de ñu nekkul julit na luñ ko bañ bañ bañ bañ bañ te réew ko nekk dëgg boo leen laajoon ki gën a baax adduna alaxira kan la ma met ki gën a bon adduna alaxira kan la iblis kon iblis a gën bon te ku def lu bon ba léegi ñu ne iblis a ko man setaane ko man kon iblis di dund yonent bi dee ki gën a baax dee ki gën a bu bon di dund du sotti kon ku bon kaa ngi fi di yàq waaye ku baax kaa ngi fi di defar yoon daal man ba léegi mu ngi dund yoon daal man moom di dund bàyyi nee dama koy wane jëxëran wa yàq sa tan yoon du boobu nag comme bàyyi moo ne rasulun minal mawla bi ko bàyyi waxee am ñuy weddi naan ah bàyyi daal waxam la rek li muy wax dafa diis yonent bi waxal ko boppam ne damay jël samay responsabilité ba fi luy des kuntu nabiyan aaliman bi nubuwati wa aadama baynal maa i wa tiin man yonent bi nekk naa yonent xam ne yonent la fekk aadama mu ngi ci diggante ndox ak ban la koy nit ñi waxee sanga bi na ban moom mooy ndox buñ boole ndox mooy ndox ak suuf bu ànd kon fekk yonent bi fekk man nekk naa yonent xam ne ab yonent la fekk aadama ndox ak suuf biñ ko war a boolee amagut ndox fekk ndox ban bi ñu war a liggéey aadama ban boobu amagut kon yonent moo waxal boppam ne nekk naa yonent xam ne laa fekk aadama amagut bàyyi ne rasulun min al mawla wa aadamu lam yakun mais lii mooy dëgg hadis ba ba la bàyyi di woy ñu ne ko bàyyi ko yonent bi ngay wax ni yow kooku fu mu jógee parce que Abdoulaye yàggut aadama ko fi jiitu Aminatu yàggut aadama ko fi jiitu mu ne fa nashatuhu sosuwaay yonent bi ma wax kanziyatul haqq mooy trésor yàlla ga ndàmbag yàlla ga fa la sosox wahdahu li zaaka ataana qaasiman wa muqassama ونشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا خاصما ومخصما فنشأته كنزية الحق وحده لذاك أتانا خاصما ومخصما دغلول لغي لي موتاخ نك بو فكي خاميو ñaar yoonenti lele nga gëlem ci alquran parce que laqad jaakum rasulun min anfusikum léeg-la yàlla waxa moom ne ko eh innaka laa tahdi man ahbabta de walakin la yahdi man yasha eh yow du ku la neex nga gindi de nekkul ne ku la neex nga gindi waaye yàlla gindi ku ko neex si ña xam allahu nag <laughs> ñoom amu ci problème waaye nag yonentu bee nga xam ne rasulun min allahi xam nga léeg-léeg nga am xadis yoo xam ne nga wax ko koo xam ne xam-xamam ci sori soriwut moom ci basin la nekk mbaamu daara la ba léegi ma nga taxaw foofu lu yoon di wax na ana min allah wal muminuuna min ni bàyyi mi gën a dégg ñëpp nee na muminuuna ga tegginu sariya la même ñi weddi sax ci moom la ci moom lay jógee yoon dafa ne man maa bàyyee ci yàlla ñi gëm ñëpp ci man lañ bàyyee ko sang bi ah, bàyyi ne même tegginu sariya rek lay waxee waaye xataa ñiy weddi ci moom lañ bàyyee ko parce que yàlla dana ko xalaqtuka li ajli wa xalaqtul xalqa li ajlika yow dama la bind ngir man waaye li des yëpp dama ko bind pour yow kon li bind yëpp yonent Yàlla Muhammad moo tax moo tax Baye mi gën a dégg bala maa ñëw si bayti bi di ko firi bala maa ñëw si beneen aaya bi Baye daf na ko fa lawlaahu laa tulfa layaadan fa innahu la basratu haza al kawni iskaana mursala fa lawlaahu laa tulfi layaadan la basaratin fa lawlaahu laa tulfi layaadan fa innahu la basratu haza al kawni iskaana mursala Allah الله الله الله يا الله الله أكبر déglu leen Baay nee na fa lawlaahu laa tulfi layaadat bu taxu doon yonente Yàlla kenn du juddu Baay ne ku juddu day féetee sa anniversaire gërëma la yonente Yàlla Muhammad yow xalal xalal xalal xalal ñàkk tegin bi yow yaa ngi féetee sa juddu sa anniversaire yaa ngi koy féetee yaa ngi féetee sa anniversaire soxna yaa ngi féetee sa anniversaire doom ñuy féetee juddug yonent yàlla man ngay mer mais quand même man bu ma bëggoon xam kii moom ban pas-pas la am ci diini féetee juddu yonent yàlla man nga ciy mer te boo gisee kii féetee juddam doo ci am benn problème kon bàyyi ne kaa yëgu leen ni bu taxutoon ne yonent yàlla man kenn du judd mu ne yonent mooy jiw yi nga xam ne moom leen ji am gi am sa fa innahu la basaratu hazal kawni univers bi jiw wi mu ji ba mu sax bàyyi ne yonent yàlla Muhammad la léegi nag ke wax loolu tamit te léegi xam nga beneen yonent bi dañ lay laaj ne xam nga jiw léeg-léeg ñuy dem si àll nga gis tool boo xam ne dugub la nga gis tool boo xam ne gerte la nga gis tool boo xam ne mboq la nga gis tool boo xam ne euh, euh, naaje la nga gis tool boo xam ne yomb la nga gis tool boo xam ne nga gis tool boo xam ne léegi nag dañ lay laaj nag waaw asamaan ci moom ban tool ci tool la suuf si moom ban tool ci toolam la ban ban ban élément ci yonent bi lañ ji asamaan sax ban élément ci yonent bi la ji suuf si sax ban élément lañ ji si yonent bi jaww ji sax ban élément lañ gis yonent bi ndox mi sax kon fa nachatuhu kansiyatul xaqi waxdahu li zaaka ataana qaasiman wa muqassama kooku nag kooku nga xam ne fa nachatuhu kansiyatul xaq moom la alquran xolaat naan ko wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim eh yow nag yaay gindi ku la neex jëmee ko si yoon bu jubbi kon ku xamee ñaari yonent bi bu yàlla waxee yonent fii ne ko doo gindi ku la neex mu xoolaat ko fii ne ko yaay gindi ku la da ngay gëlëm da ngay gëlëm moo tax sëriñ mënta ñàkk moo tax yàlla ne afala yatadabbaruuna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ndax yéen du ngeen seetaan alquran wala seen xol dañ ko kànnaaree kon ala kullin gidd lii lay doyee lii lañ koy doyee maanaam wax yi fasu yi wax yi lëj yi mu lijjantil la ko ba mu leer nañ sa bopp ma ne yonent yàlla Muhammad dafa am boo xam ne ci Abdoulaye la bàyyi ko Aminatu am na boo xam ne bàyyi ne dafa nachatuhu kansiyatul xaq wahdahu yonent yàlla Muhammad nag bàyyi dafa samp dëj ne daf koy wane ne waqad alima al aqwamu anni qadimuhu fa waslu xabibillahi yulfa bi wasliha waqad alima al aqwamu anni qadimuhu fa waslu xabibillahi yulfa bi wasliha ndeysaan oh foofu rek gis nga foofu may daan boobu rek moo nañ ci fanam moo tax man la lii ay ay temps yu yaatu da laaj waaye daal maa ngi laay biir ni nit ñi ne ku xam la xad jaakum rasulun min anfusikum yonentu ba koo koo lijjanti ba demal nga lijjanti ji rasulun min allah ki xam yonentu bi nga xam ne moom la bàyyi tagg naan faqad ixtaara rabbuna aadaman waxtaara siisa leer googu mu toppante ko ba mu jeex demal lijjanti yonentu bi bàyyi wax ne fa nachatuhu kanziyatul xaq waxdahu lidaak ataana qasimul muqassama Seyd Moustapha maa ngi lay ndokkeel maa ngi lay ndokkeel si sa laaj yu xam-xame yi laaj yi benn bu nekk rek mën nañ cee fanaan guddi ba ñàkk du ñàkk dinañ. benn bu ne benn bu ne rek la dinañ ñëwaat détail yu bëree bëri ndax dafa am foo xam ne ma bëgg nga tëjee fa. muy góor gi yaa ko wax sànq ne euh, ñëpp nañoo war a am sëriñ <coughs> te sëriñ bi ngeen yor. Mhm. jot na nag Sénégal xam mooy kan. muy sang Aboubacry Barham Ndiaye. Euh, may siyaare suñu yaayu tedd yooyu ñoom soxna mama Awa Diong ñu ngi koy siyaare bu baax. soxna Yaasin ñu ngi koy siyaare maman Nabou ñu ngi leen di siyaare bu baax te di leen jox seen wàccuwaay euh, Cheikh Daaya suñu xarit la euh, moom it ñu ngi koy siyaare bu baax ñoom Abdou Khadr euh, Cheikh Moussa ñu ngi leen di siyaare bu baax te di leen jox seen wàccuwaay Cheikh Baye siyaare nañu Issa Muntazar maa ngi lay siyaare sama waayu boobu ji siyaare naa la bu baax Mariama da nga ñuy dikkal tuuti rek ndax li ma bëgg ñu waxtaanee sang barxaam mu mun ñu koo tegal balaa temps jeex waaye da ngeen koy duyoo mën ngeen ko duyoo yéen ñaar ndax xam naa ne nit ñi namm nañ leen moro awalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wala anjali lam yazal nuruhu bi ayni ilahi في انتقالي في الكون بعد انتقالي ثم هبها الهدي وتجلى نوره في العبد الإله العلي عشقته نذار يبذلن أواه لن له من أجل البهاء والجمال قال أما الحرام فالموت أولاد من حرم مقال أهل الكمال أبحث الله وصله بنت وهب واني الله بذاك الوسال قال أما حرم فالمط أولى من حرم مقال أهل الكمال أتحف الله وصله بنت وهب وهنيئا لها بذاك الفصال كما ترهب ساهر وهي هبلا برسول يهل لأهل المال هين في بطن حاص وقدر شهرين نتوى أصله المفاد الغالية وبدا درة اليتيمة حسنا ومع اليتم في رقاء البالي دام حمل الهدي شهورا حكوها تسعة لم تحصد له بسقاليا جاءت القوى في الأنوار فردا فأتى الحور بهدة بتوالي وأتى الهقى وابل أم هيسا ثم أصية أتت للنالية وأترها أملاك ثم تضلى نور كل نجوم المفتال ودعت في دار ابن يوسف أو بالردم والشعب قول جل لرجالية ودعت في دار ابن يوسف أو بالردم وسال يحوي قول جل رجال مرحبا بربي فيه أطانا مصطفى الخلق ووقات ملسالي نور شمس تبذقر إن سمسل مستوى سوار ظلام ضلاليا نور شمس تبادقت إن شمس المصطفى شمس قد ظلام دلالي نور شمس تبادقت إن شمس المصطفى ظلام ضلالي مرحبا بالربيع في أتانا مصطفى القلق وهو قد مرساليا وهو معطون سرة وهو معطون دهين أكرم بزين رجالي حملته الأملاك نهو جنان وبهار وبدر في الحالية وتبدت أنواره وأناران قبصرا لهم فيا للجمال فتبدت أنواره وأنارت وفق بشرى لهم فيا للجمالية وتدعى ونسوم الطوالات فيه بشرى فالكفر بعد انفصال يا رج مرج مسمى كل رجيم هال مرقاه يا له من كمالية نار فرس أنهارهم في قمود وانقطاع هيون أنتهما لي فرس فرس أصنامهم ما في جفولنا وانجدال يعرب عائدا جداليا مولد الحيران قول به حسن للمصطفى الجزيل النوالي مولد حيران وقول بالإراء هذا للمصطفى جميل النوال مرحبا بالربيع به أتانا مصطفى القلق وهو قاد مرياليا مرحبا بربيع به أتانا مصطفى الخلق وهو قاد الرساليا مرحبا كل مرحبين بالمصطفى مرحبا بجود الصقي المطاليا وهنيئا ايضا لبنت لوهبه انجبت بالقتام في زلاله وهنيئا ايضا لبنت لوهب انجبت بالضر القطام غاليا وهنيئا ايضا لبنت لوهب ذهبت بالقدام ذاب زلال سبقت في فقار كل فتاة أنجبت بالدر اليتيم الخالي وصلاة على الإمام البرايا ثم آلي وصحبي كل القبول يا بين فسق معنا بالطيبة يا قليلي بغروب الدموع وارف قليلي صلى الله عليه وسلم ايوه déglu lii nekk ngir euh, euh, temps bi jeex na waaye Pa Maguette dama la koy ñaan rek oh. ndax góor gi moom faaw jeex na tàgg oh. euh, duggal ñu rapidement ma doog a tàggatoo damaa bëgg nga duggal ma si set ñoom seen way ñoom ñi nga am xaalu way maa ngi am aalu firi xam naa loolu ñii li ñu way ne dama ko war a joxaat par bëyti ma koy firi adduna bi bu dégg léegi léegi ñi xam lan mooy lan maam parce que nit ñi dañu foog ba léegi bàyyi wuyut dañ fenn oh. léegi lu ñuy def leen lay doon dama koy ñaan euh, waa waa 7TV ñu may ñu benn deux heures de temps boo xam ni. wala trois heures de temps boo xam dinañ ñëw incha allah bi ñëw waxtaan. Euh, parce que Facebook bi ñu ngi topp bu baax YouTube bi aussi ñu ngi topp bu baax a baax a baax euh, ñëwal ñu si li ma la wax sànq sëriñ bu mat sëriñ. muy sang Barxaamu Njaay ni mu àndeek Baye Niass ak nan lay waajee gàmm gi nga tëjal ñu foofu tënkal ñu ko. alhamdulilah Seydou Moustapha maa ngi lay nuyuwaat di la ndokkeeraat yow jaamu yàlla bu baax nga jaamu yàlla bu sell nga ak ma laaj ci jaamu yàlla boo xam ne dëgg naa àddina xam ko. Mhm. que xam naa ne njariñ la pour àddina bi yëpp. jaamu la boo xam ne xolom bi soo ko vérifié pour ñëpp texe moo ci ne. Mhm. jaamu yàlla boo xam ne waxam yëpp li muy wax mooy. yàlla dana aljana dana fees safara dana fees mu ne fees rek la wax nee na maa ngi ñaan yàlla ruux yëpp yal na leen yàlla pakkati dugal aljana jël benn ruu jëmm joo xam ne du am ruu sax da koy ëf ba safara fees jëmm joo xam ne ruu néew fa da koy ëf jëmm jël bu ëf fees rek la woon muy ëf jëmm ji di ko ëf di ko ëf di ko ëf ba safara fees dal ñëpp bañ a dem safara ñëpp dem aljana ruux yëpp yàlla pakkate maa leen dugal leen aljana parce que bul fàtte nit ñi dañuy wax ne yàlla bi ma wax ci Alxuraan ne alastu bi rabbikum ñëpp dañu ne xaalu bala ñu ne bi yàlla waxee ndax nekkuma seen borom ñu ruux yëpp waxoon bala déedéet bàyyi dafa bañ ne na yàlla al imaamil moxtala mata ajab la xasida yëpp xasida yëpp a taxaw ne ma boo ma dañ la xaw a mere de man moo mu jugee fii dina am problème parce que dëgg dëgg problème lay am parce que yëpp taxaw pour wax leen maa ngi pare tamit pour taw wax xasida yëpp yéen a ngi pare pour way xasida yi maa ngi war pare pour firi ko a jëmm jooj muy Mawlana nga xam ne am naa yaqin boo tegee kaamil ma wat ci ne yàlla kontaan na ci moom. dëgg la yonent yàlla Muhammad kontaan na ci moom. dëgg la Cheikh Tidiane kontaan na ci moom Baye kontaan na ci moom. la du taxaw mukk fu ñuy sal déru yonent yàlla moom. dëgg la du nangu mukk kuy wax ci diine ji loo xam ne bokku ci. dëgg la te kenn du ànd ak sang Ndiaye di di sàgg di diine képp koo xam ne yaa ngi ànd ak Maulana sang Barham di sàgg ne dara ci diine yonent yàlla Muhammad billahi wallahi tallahi wa rabbil kaaba waat naa ki yor sama ruugi da ngay mbubbuwoo sang njaay dëgg nga wax de parce que misaal bi ma ci joxe rek mooy sang njaay mooy koo xam ne du julli moom kett déedéet julli yëpp ci mbooloo la koy def mbooleem julli yëpp laa wax julli yëpp ci mbooloo la def kon kooku ko ànd ak moom di sàggane lenn ci lislaam yaa ngi ko yaa ngi koy tooñ te sang boobu dañuy yàgg wax ne taale bu nekk war naa fexe ba kenn du xeebee sëriñam ci moom kon sëriñ la boo xam ne du nangu muk ku yab dina islam du nangu muk ku ànd moom di sàggane lislaam sëriñ la boo xam ne kenn du ànd ak moom di wax naan ay wasifoon naa ci asarak yooyu moom ku ànd moom da ngay respecté tarix Cheikh Tidiane te itam kenn kenn du jëm tarix Cheikh Tidiane ci kanamam kenn du laal Cheikh Tidiane te kenn képp koo gis mu ànd ak Sanga Njaay di fooyee adra juma di fooyee wasifa di fooyee wird waatal naa la ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass ne kooku day mbubboo Sanga parce que Sanga Ndiaye mooy koo xam ne mbooleem wuti fa yëpp ci mbooloo la ko def boo booy topp billahi wa rabbil kaaba semaine du ko wuti semaine lëmb mu wuti ko si mbooloo amul semaine bi dana tëju tëju loo tëju looy tëju yow nit ñi soxla ngay tëju sëriñ day day day day day ubbiku def ni yonent la pour mën a leen mooy koo xam ne moo tax moo tax man la Cheikh Tidiane kontaan na ci moom parce que kenn du jam Cheikh Tidiane te kenn du ànd moom di fooyee Cheikh Tidiane di fooyee tarixam Sanga Ndiaye mooy koo xam ne li tax ma ne bàyyi kontaan na ci moom kenn du ànd ak moom di fooyee li ba indi doo ko fooy mukk képp koo gis ñu ne mu ngi ànd ak Mawlana Sanga Ibrahima waatal ne tarbiya na waatal ne mu ngi dox yàlla waatal ne lépp lu bàyyi wax gëm na ko am na ñenn nag ñuy ànd bàyyi boo waxee ñu bàyyi lii ba mu koy wax da wax ci xaalak ba koy wax da waxee ci fieg Sanga Ndiaye dana lépp lu bàyyi wax kaay ma wan la fan la bàyyi tax wax kaay ma wax la ci ban làmmiñ la ko bàyyi waxee kon jëmm joj man bëgg naa képp ku jullit xam ko bëgg naa parce que kuy julli tax nga bëgg xam ko parce que nit warut def dara ci kumpa parce que nit ñaa ngi julli julli yi julli tusbaar ñeent ñeent lu tax taksan ñeent rakkal lu tax timis gée ñeent rakkal lu tax suba ñaar rakkal lu tax timis ñett rakkal lu tax lii boo ko laajee sëriñ bi mu tabasa mun lu ko leeral te boo toogee Maulana Sang Ibrahima dana la ko wan ci alquran dana la ko wan ci univers bi dana la ko wan sa bopp si tariqat yaan tamit noonu laa si mooy takkoo te boo boo wiiral suba di xaar takkusaan nga wiiral takkusaan di xaar timis wusi fa takkoo moom boo ànd ak sang barxam dina luy dëgg-dëgg laa si bi nga takko nan la ko wan jërëjëf boo àndee moo naan sang baraxamu da nga nit koo xam ne danga wax ne eh, jeex nga ci yàlla te buñ la laajee jeexee ñaata mënoo ko wax te baay mi moom fay bi dafa jël carte d'identité teg ko ne ama ana fala aarifu indi man vanni fi saati marra wa fanni fi sifati marratayni wa fanni fi ismi mara bàyyi na ne man bàyyi ku ñuy tuddee arif ci ban mooy ki jeex si saatu benn yoon ci biir baay nga jeex melo yàlla ñaari yoon ci biir baay nga jeex tur bi benn yoon ci biir baay lii bëri na ko ànd ak muqaddam boo ko laajoon tey ngeen tàqale ko wala boo ko laajee mooy da ngaa yàkkamte melal ni Moussa Xadir nañ mel waaye boo ànd ak Mawlana Sang Brahma dañ la leeral lool leeral la ko si univers bi leeral la ko sa bopp kon sëriñ la boo xam ne yonent yàlla kontaan na ci moom Cheikh Tidiane kontaan na ci moom Baye kontaan na ci moom Sang Njaay du jëw parce que fu mu toog mbooloo lay te itam du wax ci deru nit loo xamante ni lu ñaaw kon ala kullin sëriñ la boo xam ne man bëgg naa àdduna yëpp xam ko parce que xol la boo xam ne daf ko yore pour ñëpp jëriñu nit nag sang bi day wax toujours nee ne médecin parfois malade ñëw ci moom malade bi bu ñëwee médecin bi xool gis na kii pigir mu gën ci moom mais médecin bi bu ko jëmee pigir duut mais malade bi wax ne kii moo soxor yow ku yor métit nga ko yokkal métit fekk métit bi mu la defar noonu daf la bëgg a faj parfois na man na wax wax wax bi diis yow mais fekk wax bi lu muy diis diis diis daf la bëgg jëriñ temps dem jërëjëf ah. jërëjëf Seydou Touré ñu ngi Sénégal war ma may guddi ma wax jërëjëf jërëjëf euh, xam nga li waral moo tax may may may faral di leen invité ngeen di ñëw ngeen li xam ñu xam ko moo tax nit ñi jariñu si ndax man xam naa ko man ñam naa si moom Pa Maguette ñi ngi jégalu bu baax baax nga may leen ñu tàggatoo rek ñu tëj jotaay bi oh. tout looy tàggatoo maa ngi sant yàlla maa ngi ndokkal jaam yàlla yi maa ngi wax ne ñëpp yàlla nañ jëriñu ñu ngi wax ne lépp lu ñu wax bu am kum blessé wallahi wa rabbil kaaba yéenewuñ pour blessé kenn mais dañ bëgg rek pour euh, ñëpp jariñu dañ bëgg rek pour ñëpp bañ arrière saahir bi ñëpp kenn nangu taxaw benn digg boo amee 5000 yaa ngi bëgg mu nekk 50 mille soo loo am yaa ngi bëgg mu yokk kasaalik itam nit ñi fu ñu yem ci yàlla lañ bëgg ñu avancer di yokk nit bañ nit ñi gaw seen xel wax leen ne fii la fii ngeen war a yem wur leen ko dépasser kon loolu la ñuy laaye biir ñëpp ñëpp yàlla nañ jariñu lépp lu wax lu blessé nit na gëm ne ñun waxuñ ko pour blesser ko ñu ngi nëyaat suñu sëriñ Maolana Sang Barham luñ xam moo tax nuñ mel moo tax moo ñu def niñ mel moo ñu xamal liñ xam liñ xam ki ñu xamal mooy Maolana Sang Barham niñ mel ki ñu ko def mooy Maolana Sang Barham ñu ngi koy gërëm ñun duñu ragal féeti ñun suñu sëriñ ci diini ji ci tarixa bi ci fayda bi mooy Maolana Sang Barhamu Njaay parce que moo tax ñi xam yonent Yàlla Muhammad fonk ko respecté ko moo xam ni Cheikh moo tax ñu xam Cheikh Tidiane fonk ko respecté ko moo xam ñi fonk bàyyi xam ko respecté ko ñii duñ leen sàgganee du leen foye moo tax yàlla duñ tàqale ko moom xefa xippi ñu ngi koy gërëm buñ yëngatoo ñu ngi koy gërëm buñ dalee ñu ngi gërëm buñ nelawee ñu koy gërëm buñ yeewoo ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi lay nuyuwaat Seydou Moustapha ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ñaanal yàlla lépp lu mébét ci àddina yàlla yàlla defal ko ñu ngi koy ñaanal mboolem jullit ñëpp billaahi wa rabbil kaaba suñ xol bi amul luñ kenn bañal ñu ngi nuyuwaat jaam yàlla yi baax yi ñu àndat ñoom Saakir Cheikh Mbaw ñoom Mariama maa ngi ànd ak euh, driver chauffeur bi mooy Dame Mesere ak euh, Moustapha euh, Batsi mooy suñu trésorier dina ki liggéey bu rëy ci jamaa bi maa ngi ne àdduna bi yëpp Moustapha salaamaaleykum ñoom ñaar maa ngi ñoom ñooy tàggatoon nag tëj ko ak waay maa ngi leen yóbbaale ak yow eh, ngi sant ñëpp eh, damay jiite sant bi Pa Maguette ñi ngi lay sant bu baax a baax ndax xam naa ne liy yombut eh, sant nañ la bu baax yokk nga temps bi lu bëree bëree bëri bëri ñi ngi lay sant bu baax Michel mi nekkoon si décoration bi ñu ngi koy sant Pa mission bi ñu ngi koy sant bu baax waaye fecc liir su neexee ndey jaay jàpp sa mbagg ja soxna may mën a nduur fay moo tax lii am ñu ngi koy sant bu baax a baax mooy suñu directrice di suñu xarit di suñu lépp di ñu conseil tamit bu dégg bëccëg ñu ngi koy sant équipe bi nga xam ne ñooy jàpp si liggéey bi bu baax ñoom Papis Mbaye ñoom Adama ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax euh, di sant Kibiya style euh, à chaque fois moo may habillé moom Kibiya di taalibe Maulana Sang Barxaabu Ndiaye 77 919 11 97 77 919 11 97 ku bëgg collection gàmmu ren moom mën ngaa dem si moom incha allah mu ñëwal la yu rafet yi euh, di siyaare président Massaer. maa ngi koy sant bu baax moom laay jox nag nu yóbbu mu teg ko si waa xadra bi yëpp ndax bunu lim ñëpp waaye dinaa si jukki ñenn ku si mel ni Passemane Kébé Lamine Diol mi nga xam ni mooy yombal liggéey bi ak lii ñu ngi koy saare bu baax Cheikh Mouhamadou Kabine Ndoye ñu ngi koy saare bu baax a baax ak képp koo xam ni waa njabootuk Sanga Barxaamu Njaay nga waa kër Bañas ñu ngi lay saare bu baax a baax soxna Mami Kayta ñu ngi lay souhaité joyeux anniversaire te ñaanal إن لم أكن منه فلي بحبهم يسن وجا فبجايهم وبعظهم طيب لنا عيسى الهيا واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تهنئة ربيع بمرحتي شفيعي بمن تغلى بديعي أبغي يا مؤملي ربي بمن حدي شفيع بمن تقل بدي مؤملي لولا الحبيب المرتدى ماني لماذا يرتدى ودينه الذي ارتدى إلهه في الأزل سهن العجيب ورمزه رمز الحبيب رمز الحبيب للحبيب في عرف غير المشكل أهلا به إذ هملا أهلا به إذ أنزلا مفقما مبجلا قد فاق كل رسوليا أرسلا وإسرا ونزلا ونال ذكر منزلا وليس بالمبجل يا ربنا فاغفر لنا والتعفو عنا واكفنا وتتقبل سعينا بجايها خمنا نسخد ويكل موي ndax baat bu neex bi yaa ma ko may abilaay na ma mën a way ba la man li